alhamdulillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu cosaanu bi Kossy TV a waral la bàyyi njëkk dem ci ajam gi am na fukki ñaar fan ak benn ci ci Madina door a dem mag foofa ci la dajeeg amir kënu bi nga xam ne moo njëkk jàpp ci moom nga xam ne mooy ubbi yooni Nigeria ndax fekk na dégg ngeen ko ba sonn duma ma jaaraat ci yu bari waaye ci la bees du ci bàyyi moo ñim ànd ak ñaan ko lijaasa mu may leen lijaasa bàyyi mu ne amir bi ànd ak moom di ko xidma ci ajam gi aj gu bari karaama la ndax bi muy dem mu ne magam mu ne suma wàccee ki nga xam ne maa ngi koy wàccee suma ma wàcc waaye bàyyi bàyyi ku yaru la ku baax la boobu baat boobu da ngay foog lu tuuti la waaye maa ko wax bàyyi ku baax la mu ne alaaj baakar daf koo dénk ne ko boo gisee lu la jaaxal rek danga gis sa baay baay mu ne ñu dugg ci bato bi xam nga ku miinut bato boo duggee mën na laa indil ay miir ak yu mel noonu mu ne mu commencé am dawaxaan di miir mu gis baayam gis Cheikhu Tijaani radiyallahu anhu mu ne maa walaa ji saabaka ko nii dugalanteeg moom loxo mu saabaka sax siru la ci siru gaañ yi gaañ yi dañ ko dañ koy wax xam na am na ñu ko xam hmm. mu ne baayam ne ko jàngal inna allaha la yastaxi ba ci wa is an jaynaakum bàyyi mu ne ma jàng ba ci wa ida laqu ba ci ba xisib ba mu ne baayam ne ko loola alaaji alaaji baakar waxoon na la nangam loolu duur ay nelaw duur ay ay gént loolu ci aj googu la amee boobu àggagut sax fa mu jëm ma ne ci Medina la beesalalee amir Kano mu topp ko nekk xaadimam te bala ngaa xam ñooñu pour ñu nekk xaadimi nit lan lay tekki mooy nga dem ba gis leen ndax kenn du leen nuyu sax koo xam ne booy génn lu ñuy wax suuf yarul gaynde dëggal rënkee dëdee yàlla na yàlla nga fi yàgg akramakallaahu di la ñaanal te koo dara kooku la bàyyi njëkk a def taalib amna ku ñuy wax ali ibn abdullahi tayib nga xamne ne la ci imam shafii ci aj googu lako baye joxe joxee lijaasa ci tariqa bi ali al kutubi batay ab sharif ci aj googu lako baye joxe tariqa tari lijaasa ku muy tasse ku ñuy wax ahmed tibri nga xamne mom dafa wax baye ne ko ndax duma la wax suma gént gi nga bind ko ben wàll bu mag la ne ko dama gént yaangi seddelé masharib yeb yëpp way yeb yaa koy seddelé mu ne ko li li loolu namm nag mooy yow yaay ki nga xam ne léem nga naanuwaay yépp ubbi nañ ci kaaba gi mu dugg ci kaaba gi Ahmed Sey bi nga xam ne moo doon day garde kaaba gi ne ko lu tax doo xaar ba guddi nga ñëw ma ubbil la nga xam ne dafay féex mu dee soit foofu mu ubbil ko ci ajam gu njëkk mu daje kenn ci ruknul yamaani bokkut ak xajaral aswad bàyyi ne waa ji waaw yow yaa ngi ci réew mu barke mii ñoo fi taseeg nag ci ñu baax waa ji ne ko min daal bi ma ñëwee kooku waa fas la kooku ne ko man daal bi ma ñëwee damaa taseeg fii benn waay boo xam ne min ahlil fi la ci borom kës fii la waaye daf ma wax ne bi mu duggee ci xaram bi rek xaal daf koo jàpp mu am xay buuba mu fàdd tuuti bi mu fàddoo mu gis xadir gis yonent bi gis aboubacar siddiq radiallahu anhu yonent bi ne ko at mii alxawsu dana aj si borom jamono dana aj te yàlla dana baaxal ñi taxaw ci mawqif bi yépp ngir sababi kooku waa ji nettali bàyyi loolu bàyyi na ko yow nag waa ji ne bàyyi yow nag koo daje bàyyi na ko yow laa daje <laughs> dégg nga wax ajam googu yàlla may na ko ci mu wër kaaba gi mu ne ci diggante tisbaar ak tàkkusaan te lu ñu wax dëgg la ñu ko xam xam ku ko xamut gëm ko maxaama la idaa taral tara alhilaala fa sallim li unaasin ra'awhu bil absaari boo gisul weer wi nangu la ñu ko gis sëriñ si dañuy wax ne maqaama boo weddi ñi xañ la ko moo tax weddi maqaama góor ñi jar naa moytu yàlla dafa yàlla ku yaatu la ku mën a mayal bàyyi mu ne wër na kaaba gi diggante tusubaar ak tàkkusaan ci jamono aj te benn nit newu fa xam nga loolu koo xam ne sa xel rek ngay jëfandikoo mënuloo koo dégg waaye bokk na ci li ko yàlla defal ci ajam googu lay liggéey fay du baay bi si ji barahama Kossy TV am ngeen jaarama yéen ñi ànd ak baay yéenay liggéey fay du baay bi si ji barahama ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di ñaanal waa Kossy TV